maanaam ku la déglu dëgg dëgg dëgg day xam ne eh, loolu ñuy wax ne àllub xam-xam ak àllub am-am képp kuñ ci sànni rek te dimbali wuñ la rek mën ngaa sànku ba faaw gis nga loolu nga naan xam-xam xaaruma ba ay tarixe di moo ko xamal xam-xam du lu ay tarixe wala leneen di xam la xam-xam lu nekk lu existé rek loo xam ne ku jàng yàlla defal la nga xam ko du caagi ne nga bokk ci wenn xeet wala nga bokk ci wenn famille foofu la réer dale ndax ñun ñëpp ñoo bokk wenn xeet bokk benn famille ndax anna asla kullu naasin aadam aadamu te wa huwa min min tayni turabin faalamu la sidna Ali wax cosaanul doomu aadama yëpp aadama ak awa dong la ñun ñëpp ñoo bokk lépp ñoo bokk ndey bokk bàyyi di ay doomu aadama ñun ñëpp leen dong moo ñu wutali jikko moo xam muy ñaaw moo xam muy rafet li bi ci toppit mooy yar ak teggin tarixa yare dong la ñuy def ñoom defuñ leneen dañuy yare rek te àjjana moom ko amutub yar doo ci tàbbi wala nga ami tegin te ñaawi teggin nag mooy ngay wax nit ñi ba noppi ku bëgg wax ak yow nga ne ko soxla su uma sa ay golo ngeen loolu bu fekkee golo lañ te nga bokk ñoom kon jàppal ne loolu génnoo ci ñun ñëpp kon ñoo bokk di mel ne xeet ginnaaw yow yaa ko gisee noonu waaye man de gisee wu ma ko noonu te it man jàppee wu la sax golo dama laa jàppee koo xam ne da doon wax te li muy wax ma dégg ci wàll woo xam ne ni war naa ci mën a am gis-gis am ci tontu ndax seen àdduna bépp ngay waxal comme da wax ak àdduna bépp mbir mi concerné ma nag am na droit wax ci ak waaye bul waxatee man man awma soxla sax ci wax ndax man xam naa xamuma waaye mais xamuma la dama laa gis nga wax te loolu ngay def du benn du du du lenn lu doon kii ma maa ngi gis théâtre kat yaa ngi ci télé yi su yëkkati film yaa ngi ci télé yi kenn ko mi ngi ci télé yi def na ko su doon dem ci télé du dara loolu ngay wax naan yaa ma ko gën a xam ndax archives yooyu gënoo ma ko xam da ko koo jàng rek ma jàng ko di ndax fekkee ba bañ ko ba ba muy am ñun ñëpp dañoo maasi jàng dong te man gëm naa ne li ma jàng xam naa ko yoo xam nga li nga jàngum nit waaye daal yar ak teggin sentir naa ne manqué leen nga ko lool lool lool arrogance notoire boo xam ne bu leer nañ la feeñ na ci ni ngay waxee sax même booy wax ci télé day wane ne ku ku ku yaree di ko ngi nii ku yaree di ko te ab yar dafa am solo ndax ab yar képp ku ko amul doo tàbbi àjjana mukk moo tax nag fasal yéene jéem am ab yar ak teggin te bàyyi ni ñi ngay tereet ay golo bàyyi nit ñi ngay xas xas warul jaam. man day jàng naa ne ñu ne nit ki balaa jàpp moo gën kenn ne nekk bataa bi tàbbi na ba noppi booba ngay war a di xas nit moo tax xaste koo gis mu koy def rek nanga xaw a jaaxle ci mbiram képp koo xam ne xas nga ko yàlla xasul te yow sax yàlla xasloo wula ko lam la diggal mooy nga yem ca wa la nga war a def nga ne ca ndax wa an lay lil insani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura summa yujzahul jizaal awfa te wa anna ila rabbikal muntaha loolu luñ xam la luñ jàng la nit ki nit ki du lepp lu bax lu am yalla sun borom moko defal lu ñaaw lu am ci safan mom moko fagul bopam ma maa min hasanatin min allah wa ma asaabaka min sayyiatin fa min nafsika mbir mi dafa simple ta leer jeru xer xeti jeru sonu jeru xass nit ñi li am solo gur ci sa mbir ta nga jaamu yalla ta ragal ko lolu moy li lay jëriñ waye tok di xass nit ñi ka jaay xam-xam bu reek dalang dalangi fe la bok fi la bok lolu amul ben sens ndax fa idanu fi fi suri fala ansaba bainahum wala yatasaluna sax len rek من saxulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man xaffat mawazinuhu wal iyaazu billah fa ulaika lazina xasiru anfusahum moo tax il faut faire très très très attention ñi ngay jàkkaarloo di wax dañoo fees dell ñu ci bari dañoo xam lañ war a xam xam bàcc nag wolof nee na mën na xam wax xam na xañ ne yow da ngay xam di wax waaye tey jii bu fekkoon ñi xam ñëpp ñi ngi wax kon duñ la tàllal sax déglu ndax wax ji dana bari ba kenn du déglu kenn moo tax faw ñu wax ak yow nag loolu jarul nga di ci mer jarul nga di ci rëy jarul nga di ci coow jarul nga ci xas ni ñi ay golo boo leen doon traité ay golo ak i xajit boo waxee des na la tontu jarul wax ndax làmmiñ dong ngay waxee nag te li nga xam bay wax xañ na nit xam na lu ko ëpp te waxut moo tax faire présentation te nga te nga te nga te nga bay bàyyiwaat xel sa bopp Jema am yar jema am teggin iblis ëppoon ñëpp xam-xam na jaamu yalla ñëpp waye ñak yar ak ñak teggin moko sabab duggal ko ci li mu nek ba duggal ci ba labal ci ñu bare bare bare bare Omar Diagne na nga delu siwaat par par terre nak xam ni doom adama ñun niñ ko doone am jema am yar am teggin wala tam shifil ardi marahan innaka lan taxriqal ardi wa lan tablughal jibala tuula defal defal attention ta nga ta nga ta nga ta nga te nga sa bop da nga wayfal sa bop reuy mbubbum suñu borom doomu aadama bu ko ku ko sol suñu borom alag la te nga maa ngi lay moytuloo rëy di la ko laabiré te nga doon ab jaamu yàlla boo xam ne xam nga ne jaam nga bu bu bu xamoo sax yàlla nangu na sax jaamu ndax jaam ab daraja la ab garaat la xuma am nga comme déet loolu nag lu jara a bàyyi xel la man de maa ngi ñaan yàlla am ko fas yéene di suufe di woyef su may wax ak sama mbokkum jullit wala sama mbokkum taalibe xam ne doomu aadama la wala doomu aadama bu bu mu mën a doon bu may wax ak moom ci sàmmi ak yàlla suñu borom mi ko bind wa raa'i fii kulli xalqin haqqa man xalaqa ñun dañ ñoo jàngal yar ñun it buñ la xasee yar la la muy am solo mooy nga exercer ko yow ci sa jariñoo ko mi ngi mel ne nga jox ndox téeméeri nit ñu koy naan te yow naanoo ci du la jariñ dara jëlal ndox mu sell mi nga naan ko te te te am jàmm nit ñi am jàmm bàyyi nit ñi nga bëgg a bëgg leen ko yónnee wuñ la ci ñoom doo ab yonent do doo leneen li nga doon mooy laabiré nga sañ te sa laabiré dafa am nuñ koy defee ndax firaaw na sax ba ba ba yàlla yabal ci moom yonti yàlla Moussa dana ko boo demee waxal ak moom dànk ah, fa xuulaa la xawlan layyinan la ko wax bu ngeen demee yaa Haaruna sa sa mbokk alayhimu salaam alayhima salaam na ngeen wax ak firaaw na wax ndànk firaaw na mag la ba noppi te nit ki taay laallahu yadakkaru aw yaxsha la ci teg nit ki boo bëggee li nga koy wax mu amal ko njariñ dafa am noo ko koy waxee ndax nit boo ko bettoon di ko lellem boo ko ko sañaxal sax du du du dana ko gaañ wala du ko bëggati moo tax nga li ngay wax nga sàmm ci àq yàlla ak sàmm ci àq doomu aadama yi ngay waxal xam ne say nawle ngay waxal am yar ami teggin mooy tax ñu mën a dégg li ngay wax buñ ci mënee bu ci jariñ amee ñu jariñoo ko waaye nii ngay waxee ak ñi nga comporté woo gëw ma ne mën ngaa jariñ kenn yow dafa mel ne am na looy jaay loo xam ne kenn xamul lu mu doon te loolu du mën du mën a du mën a jar fii